yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax nañu xadis boo xamante ni xadis boobu dafa bokk ci ak durar ñeel page bii di ndaanaan faydu bokk na ci xadis yi nga xamante ne ñun moo ñu gën a neex képp ku miin page bii di ndaanaan faydu xam nga ne genre xadis yooyu noonu daanaka buñ koy buñ ko defee ba pare suñu ŋaam yi day metti ndax muuñ ngir mbégte biñ ciy am mooy bépp xadis boo xam ne dafay dafay aju ci mbëggeelu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bàyyi xel yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbëggeel bi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg xeetam bépp xadis bu ci aju ñun daanaka loolu mooy suñu raaxatul qalb bii nag moom dafa neex yenent sallallahu alaihi wasallam sallam dafa wax ci xadis boo xamante ne ñëw na ci bulughul maram bu ibnu xajar al asqalaani yenent sallallahu alaihi wasallam inna lillahi malaikatan sayyaaxiina fil ard يبلغوني عن أمة السلام يعني أنت صلى الله عليه وسلم ونا يلا أمنا أي جامع وخم أنت اليوم دنيا يور ميسيون إسبيسيال ما يدني يدخل تبدي تبير كري تقول واري تبير نيجي إني كم أبور دجلو أنا بن جام موي جلتي من بن جلتي موي جلتي من يعني أنت صلى الله عليه وسلم نيجات على كوكو di xëccoo leeru tur yàlla boobu noonu wala leeru julli ci yenent boobu sal allahu alai wa sallam ndax xet bu neex yonent bi sallallahu alayka ya habibi ya rasulallah wax nañu ne nit ki bu jullee ci man ak fu mu mënti doon danañ ma ko jotal te julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bi nga xamante ne dafa am garantie nit mun na julli tisbaar yàlla du ko nangu mun na julli gée mun na saraxe mun na woor mun na aji màkk fekk yàlla du ko nangu wante alsalaatu ala habibina muhammad sallallahu alayhi wa sallam maqbulatun qatan julli ci yenent bi moom sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf koy nangu ala ayati xaal ak condition boo ko mënti defee moo xam yaa ngi sol yére moo xam solo yére yi laab nga laaboo ak lu mu mënti doon yàlla daf la koy nangul kon dara gënul nit ki di bëril di julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam boo julli ci moom benn yàlla julli ci yow fukk kenn xamul julli yàlla nu mu toll boo jullee ci moom benn sallallahu alayhi wa sallam nii ma waxee nii malaaka yi dañuy ñëw ci yenent bi نكو ابو العباس دوم علي كان مونغ لي نيو يننت يعني صلى الله عليه وسلم جار سي سما لا اله الا الله ني ني ني وعليكم السلام يا أبو العباس لي ني لي لي جارنا جي جيخال سونو تاني تي لول تي صلى الله عليه وسلم نيتالي نتكو نيت كو خامتاني دا فا صلى الله عليه وسلم بوسو بينتي تاخاو كوكو نيو تي تي جيجو كوثر سارة نان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 ci di julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa ba yenent bi xàmmee ñu ba suñu ñëwee suba yowmal qiyaam mu akolaat ñu ngir xàmmee gëm ñu xàmmee ci suñuy tur ci suñuy jëm nañ ci bàyyi xel yar ci suñu bopp yar ci njaboot gi yàlla yàlla saxal suñu làmmiñ yi ci julli ci yenent bi saxal ci suñu xol yi ci mbëggeel yenent bi bi jaahi rasulillah